ñi sax seen fital ñi di wi jaasi ñi di yoraay saddala salte yi laay dindi ak bopp yi yi ni muy saxi si géej gi rek salte bi gisoo gisoo bopp yaa ngi nii moom la ñuy dindi racine ni gisoo day mel ni ko sax ay karaw ni nga nettuwaay lépp ba mu set ni gis nga waaw nga dindi ko ba mu set boo paree def ci sa saak jël beneen saak nettoyé. man nag damay yëngatu si ay algues di liggéey ay algues depuis 2002 di transformer ay algues defar naa fi de transformation Almadies dépensé parce que ay 40 millions Pape Diop ancien toj ko li tax mu toj ko Yves Crémier mooy directeur Sococim bi moo ne si kanamu këram dara du fa ne. comprendre nga actuellement ay baarax yu kenn xamul lañ fa def te foofu waroon na jël 500 personnes ay femmes ak ay góor ñu tabax beneen site de transformation Mamel. waroon fa jël tamit plus de 500 personnes baarataal bi ko marocain di tojal xeer yi ñu tojaale ko léegi ñun nii la ñuy liggéey chaque jour am na ñu fiy ñëw di ñu menacer lu ñuy defar ñu de ko toj waaw léegi nag ñun dañu bëggoon ku ñu jàppale pour ñu am benn site de transformation boo xam dañu ko mën a defar mu baax parce que y plus de 1000 personnes yu siy liggéey les plongeurs kii nu mu tuddati jigéen ñi siy liggéey góor ñi siy liggéey waaw léegi nag ñun bu ñu ko jëlee dañ koy transformer jaay ko non fii noo fii xamaguñu ko mais peut-être plus tard si kanam man ñu dem ba wax Sénégal yi nañ lañ koy lekkee ñu door ko mën a lekk comprendre mais actuellement nii man xam naa ko mën naa ko lekk mais yow mënoo ko lekk parce que bu ñu la ko joxee sax doo ko lekk loolu mooy suñ problème bu ñu amee ne ku ñuy dimbali ñu am benn site de transformation boo xam ne mën nañ fa toog liggéeyloo Sénégalais ñun mën nañ ko xam na nan lañ def ba di jël plus de mille personnes ñu liggéey waaw lii nag moom moo nekk algue algue nag ñu bari amaana dañ koy gis ci géej gi des fois mu leen di laal sax muy daw muy xaw a daw seen yaram parce que ñu mm-hmm. bari laaj naa leen ñu affaire boobu daal dafa ratax parce que déjà bu la laalee dafay daal di daw sa yaram mais noonu algue bi ci kese boo ko raxasee mun nga ko lekk parce que day tax euh, feebar yu bari yoo xam ne ni tey ci jamono ji ñu ngi koy jànkonteel booy faral di ko lekk doo ko jànkonteel mais ñun issi euh, Sénégal xamuñu ko xamuñu njëriñ bi ñoom dañ koy defar dindi ko nettoyer ko ba mu set. Mhm. dafa am nag algue bu rouge am bu vert mhm. am tamit boo xam ne donc euh, bu weex la mais ñoom ñoo koy traité ñoom ñoo koy defar ñu koy gën a jëfandikoo nag mooy chinois yi. Mhm. ñoom ñoo ko gën a xam ñoom ñooy ñëw jënd ko fii buñ ko jëndee yóbbu ko seen dëkk traité ko indiwaat encore dañu ko jaayaat. donc je crois que ñun tamit war nañoo xam njëriñ bi nga xamante ne moom moo nekk ci algues yi. Mhm. parce que des fois dañ ciy fabriquer lu ci mel ni meew yi ñuy defar dañ ko ciy def. ok waaw mu mel ni kon gars yi ñu ko ciy yëngoo ko jaay bu ñu am ci njaay mi rek mais nanu teg jox nit ñi ay tegtal. waaw ni am na njariñ surtout ci wàllu wérgu yaram xam nga chinois yi ñoom lu ñu yëngu rek. Euh, am na njariñ te pourtant boo demee ci yenn marché yu mag yi yu ci mel ni supermarché yi boo ci demee am na ci ci sachet yu mu nekk. Mhm. boo koy lekk sax doo xalaat ne algue la parce que da ngay foog ne fruit de mer la te fekk algue bi la ñu traité am noo xam ne noonu lañ ko defaree euh, nga daal di koy lekk mhm. Bessél maa ngi lay gërëm aw bi xëy na dina ànd ak cere ma séeréer ba tax may wax. kay dina ànd ak cere kay. <laughs> jërëjëf Bessél Bass la woon mbokk yi ñun ci consommé local ñu daal di wéy ak yéen ci programme bi ñëw ci wàllu pàcc beneen laata may dalal Ibou Diouf mooy wàllu ngistal Ibou nuyoogoo gars yi de ci plateau bi nga yaru yarul nii. <laughs> Elhadji Assane euh, xanaa di jërë jaajëfal euh, suñu mbokku téléspectateur. waaw euh, bul demagum <laughs> nuyoo rek laa la wax sa élément ñëwagul Ibou dama ko yab nag ñu daal di ànd ak ki xamante ne mooy Nafissatou Sylla saa su ne moo jikko yi ngistal mbokk yi ñi nga xamante ne ñoom duñ def dara ca yàlla tax ngir rek nit ñeek ni ñu ko waxee baat ba ngistal Nafisatu si la nit di def pour ñu gis ko te li muy def du benn yoon dëgg ci moom loolu mooy ngistal mu doon nag jikko goo xamante ne ñu bëri rafetlu ko ndax dëppoowul ak lu baax ko ngistal doo doo dugg pour mu leer nitu ngistal mooy nitu naafeq naafeq ay ansan laaw mi na yàlla ci yàlla musal ngistal baaxul ngistal moom moom mooy poson ngistal poson la xam nga lu tax muy poson ngistal mooy loo xam ne yow loo xam ne boo ko defoon tey boo taxee di julli di ngistal amoo julli bu fekkente ne da ngaa saraxe di ngistal amoo sarax bu fekkente ne da dimbali nit ki ci ngistal moom dana ci am dara de waaye yow amoo ci dara kon kay tey li nga xam ne mooy yàq ji jikkoy Sénégal mooy ngistal kenn ku ne da ngay def ngir boo duggee ci benn ministère di liggéey ku ne da ngay liggéey pour ngir ministre bi gis la boo duggee ci kër ku ne da ngay da ngay def ngir borom kër gi bég ci yow ngistal lu baax lu ñaaw la loo xamante ne vraiment ku ko mën a éviter moo gën. mu am nag ci anam yu bëri ci diggante ay nit ay xarit wala sax ay doomu ndey fii ci Sénégal naxante bi bëri na fi loolu ku nekk nag di wane lu nekkul ci moom. nit ki bu dee sa xarit parce que ngistal mooy loo ko def wane ko li nga ko ëppalee da nga ko koy won moo xam muy yére moo xam muy loo def sax loo ko defal ci biir nekk boo génnee ci biti ñeneen ñi xam ne defal nga ko donc loolu du xarit. ci xarit daal pour man li ma jàpp mooy ngistal mënul am ci ay xarit bu dee ay xarit lañ te mu dëgg-dëgg xarit ngistal du fa am parce que ngistal du du lu baax ngistal mooy euh, loo ko defal won ko ba ñeneen ñi gis ko soo ko bëggee may sax ci kanamu nit ci nga koy may alors que mën nga ko jox ci biir biir néeg bi. ki nga xam ne nag moom day ngistal te mu yées ci ki ngistal mooy ki ngistal ci xarit ki nga xam ne boo ko gisee mu mel na ku lay bëgg a for woon na te boo ko wanee gannaaw boo ko wanee gannaaw mu yàq la lu mel ne xeme te dana la jege jege goo xam ne. lu mu wax ci yow kenn du ko di ndax dañuy gis ne yéen rek ay ànd. ngistalkat goo mënti gis saa su ne dafay bëgg di jëf fu ay nit di nekk. lépp nag lu muy sàlloo dafay bëgg mu biir ngir nag nit ñi xam ne moo fa jaar. yow nga bëgg a def lu baax daal au nga woo nit ki ci pet ni ko maa la defal lii wala lii man a yow ak yàlla rek mais doo ko def dangay xaar fu ñu mbooloo mi gën a baree ah nga koy nga koy joxe ci biir mbooloo ma pour di di wane ni gis leen ma daal man maa ngi defal diw lii. bu njëkk ba euh, nit ki bu la daan wax ne bëgg naa la doo ko gis doo ko dégg ci làmmiñam waaye ci ay jëfam nga koy gisee ñu dem ba nga xam ne kóllëre googu kóllëre gu dëggu la maanaam gis tal daal ki nga xam ne da koy def moom dañuy jàpp ne euh, moog janax ñoo yem ndax janax fi muy duggee ak fa muy génne du benn. loolu nag moom la wolof di wax ci ngistal moo tax wolof ne ne euh, kii ngistal ku ko gisut sonal nga ko kii ngistal ku ko gisul rek sonal nga ko ndax moom dafa bëgg ko gis li muy def bu demee bay mayee sax du du du la woo mukk foo ngeen wetee mu may la day fexe ba nit ñëpp xam ne may na la mbaa mu yóbbante koo xam ne dana ko nettali ndax am na ñoo xam ne boo leen yóbbantee ji nit kenn du ko yëg waaye day xool waxkat mu jox ko mu jox la ko ngir mu waxi ko feneen loolu moom mooy ngistal ngistal dafa warul bokk benn yoon ci ay jikkoy nit ndax bokk na ci luy yàq société bi ak di rey jikko yi baax yi nga xamante ne mag ñi loolu rek la ñu xam. bu moo doon wax jikko ak ngistal dama naan euh, ngistal moom mooy posonu jikko ndax jikko mooy li fa ji ji ko loolu wolof di wax ji ko fa loo fa jiwut doo ko fa góob kon nit ki buy gone mu am lu bëgg ñu def ko ci moom bu fekkente ne ngistal nag lañuy ñuy lal ci moom moom mooy jikkoom kooku nag ba baa muy dee du doon nit ku dëgg du seede dëgg te du wax dëgg. comme du doon nitu dëgg ndax du doon nitu dëgg ndax lu muy def moom day jiital la nit ñi war a gis du wax dëgg ndax day bëgg lu neex gi muy waxal mbaa muy bëgg lu neex ñi koy déglu mbaa mu bëgg lu ko yëkkati moom beneen bi ci des nag mooy mooy mooy bi nga xam ne moom moo ci yées mooy dadul nit koo xam ne mën nga koo wóolu ba wéeru ci moom ngistal li muy def daal moom mooy ni ni nga xam ne almet noonu lay taalee ñax goowu ngistal noonu lay taalee jikko noonu it lay taalee am réew Sénégal nag war nañoo def suñu kéem kàttan ngir dolli suñu bopp sutura sutura nag di posonu ngistal ndax képp kuy suturaal boppam ak di suturaal lépp lu ko wër ngistal taxu ko jóg te kooku nag borom bi subhaanahu wa taala du jóg mukk ci di ko suturaal saa su nekk Nafissatou Sylla ak euh, Madani Marega ñu leen di gërëm Abdoul Aziz dégg nga ko ci wàllu wàllug euh, njàngat li professeur Massamba Gueye ñu koy nuyu euh, ci wàllu ki nga xamante ni mu ne boo ko bëggee sonal rek nanga bañ a gis la buy def. waaw olof a ko wax nee na ngistal boo ko gisu sonal nga ko. Mhm. moo tax ki koy def lim ci bëgg rek mooy ku ko wax. Mhm. te comme dan ni jëf bu rafet mooy bi ngay def te kenn du ko wax te doo ko wone mhm. loxo bii ndijoor bu joxee loxo càmmoñ waru ko yëg. ngistal boo ci def rek ci diggante bi pour woon ko nit ñi rek. loolu mooy ngistal te Assane euh, ki ànd ak yow di def ngistal dalay yàqal yërmande dalay yàqal yërmande ndax tànk gisoo ko du ko def ci kanamu nit ñi kon bu la gisul rek ndimbali du dikk